Elimane Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ndeye Comba. Elimane Sall yaa jiite association bi xeexal locataires yi euh, fii ci Sénégal laaj bu njëkk est-ce que bokkoon nga ci ñi demoon euh, fële ca pale ba wuyu ji président Macky Sall ci concertation yi doon amal euh, jëmale ko ci dundu gu cher gi. waaw bokkoon nañu ci ñi nga xamante ne ni président woowoon nañu. pour ñu mën a dem toog euh, bokk ci waxtaan yi euh, fësal itam suñuy jafe-jafe parce que li taxoon mu wooñu aussi mooy secteur yëpp nañu ñëw moom ci boppam mu déglu ko bu ko defee mu jël note soogay joxe ay instructions muy loo xamante ni ci ñun lu ñu rafetlu la parce que rencontré gul sax gouvernement bi nga xam ne nommé na leen waaw ñun la njëkk a na gouvernement parce que boo boo xoolee amagul benn conseil des ministres bu am donc loolu muy lu ñu rafetlu même bu fekkente ni itam. gis nañ ne ba mu faloo ba léegi deful lu mel nii euh, mais euh, comme niñ koy waxee ci tubaab rek mieux vaut tard que jamais euh, mu ñëw moo gënoon mu mu mës bañ ñëw donc comme ñëw na. Mhm. dem nañ wax nañ ko ñu ngi xaar nag fan la wànnent di mu ki gëtam ak it concertation yi nga xam ne waxtaan yi nga xam ne ubbi nañ ko pour que secteur yëpp mën a waxtaan ak ministère yi yi mu concerné ñu mën a booloo waxtaan pour trouver ay solution yoo xamante yi dina. Euh, wàññi jafe-jafe yi nga xam ne euh, ay la yeween sénégalais yi attanatuñ ko parce que jéggi na dayoo. Euh, yow naka nga gisee waxtaan woowu ngeen seq ak président pratiquement mu woo ci association ak mouvement yu bëree bëri yow déjà est-ce que jàpp nga ni lu ni baax na wala baaxul. mais lu lu ni lu baax la mais loo xam ne la sax warul woon a commencer heure bi parce que tey dañu naan léegi élection présidentielle yi ñëw. en deux mille vingt quatre donc waroon na koo gën a teel a def waroon na koy répéter chaque année mais dañ ne rek euh, mbir mu baax moom ngay nga nga teel koo def nga yeex koo def heure boo ko defee rek lu baax la donc comme def na ko dañu ne lépp lu ñu ci jël loo xam ne arrangé na askan wi même moom bu fi nekkatul keneen kuy ñëw mais doo dindi li nga xam ne arrangé na askan wi parce que kuñ fi teg it liggéey pour askan bi moom moo la fi teg donc am na ñoo xam ne nee naa ñu warul xaar bay dem di def lii mais mieux vaut tard que jamais comme def na ko nañu jël parce que ñun aussi dañu topp ci ginnaawam rek bi revendiquer lu ñu teg ñu jël dugal ci suñu sac continuer uniquement nag pour l'intérêt des population bu fekkente ne nag dem nañ ba gis ne lii muy wax dañ koy wax rek muy na sax ñuy jël di dugal ci tiroir bu boobaa it peuple bi ñu ngi fi ñoom ñooy arbitre bi ak yéen ñi nga xam ne yéen yéenay sentinelle ci lépp loo xamante ni doxalinu réew mi la parce que yéen a ngi surveiller lépp lépp loo xam ne mu ngi fiy xew Euh, Elimane est-ce que tamit euh, président euh, Macky Sall nekkul di nax boppam lu mu mënul régler si fukki at est-ce que mën na ko régler ci ay weer yow tamit. Elimane hmm. mais mais mais xam nga lu bëri mooy li ma la wax sànq. Hmm. loo xam ne waroon na koo def depuis ba mu faloo ba léegi bu toogee ba léegi mu def ko effectivement am na ñoo xam ne nee nañ mbiru politique la. Hmm. waaye finalement finalement conséquences yi bu fekkente ne lii mu wax jëfewu ko. ci moom lay gën a graaw ci ñun ñi nga xam ne ñoo demoon wuy ji ko parce que ñun mhm. dañ fi nekk rek pour ku ñu woo ñu yaakaar ne war nga mën a indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu yi jànkoonteel am amuñu droit toog bañ a dem surtout koo xamante ni moom moo jiite réew mi depuis plus de dix ans léegi nag ñaata temps moo ko fi dese ñaata temps la def ñun li ñu soxla mooy lép loo xamante parce que fi mu nekk nii bu ñuy wax ak élection présidentielle deux mille vingt quatre est-ce que mën nañ toog bañ koo wuy ji ba deux mille vingt quatre di dund jafe-jafe yi. Mhm. day gën a graaw donc li am solo mooy dem wuy ji ko bu fekkee jël na ay décision yoo xam ne dina abrégé jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dundu léegi léegi léegi dans quinze jours fii ak fin octobre mais nit ñi aussi dofuñu am nañ seen bët am nañ seen xel bu fekkee moom day woote rek na sax noonu mais il va raconter les euh, les conséquences effet boomerang lay def léegi nag lépp lu mu ci wax jëfe ko ah dañuy jël téye. keneen ku fi ñëw ñu ne la ah lii kat régime bi fi jàll. Mhm. defoon na ko da koy da koy dëgëral. bu fekkee defu ko itam mais sénégale yi dofuñu parce que léegi nag wax dëgg yàlla mënatuñoo nax kenn yéen a ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi te lépp loo xamante ni nii jaarul yoon dinañ ci teg baaraam dénoncé ko. fukki recommandation ak euh, benn la ñu daal di la njiitu réew mi teg en tout cas ay mesures euh, pour xeex prix yi nga xamante ni yokk na ci euh, marché bi yow en tant que sénégalais père de famille lu ni mel ban jàngan nga ci am est-ce que yaa ngi koy rafetlu. maa ngi koy rafetlu parce que mu def ko moo gënoon mu bañ koo def mais nag toujours wax la. te wax dafa war a ànd ak jëf ñun wax jëf la ñuy xaar léegi nag boo ñu woowee pour ñu waxtaan dinañ ñëw jooytu jàmbat la suñu jàngoro parce que yow la yàlla teg ci boppu réew mi pour l'instant li ñu mën nag mooy dem ne ko président ah dund bi cher na ceeb bi cher na diw gi cher na ciment cher na ak lépp loo xamante ni nii mu ngi jëm ci dund dundinu askan bi mm-hmm. moom mu ne ñu lii laa ci mën a def léegi nag bu waxee ne lii laa ci mën a def ne dinaa ubbi ay waxtaan pour que kenn ku nekk indi xalaatam su ñu demee ba jox ko lépp ñu ngi xaar nag taxaw sur le terrain di ko xaar parce que ñun duñu ay décideur bu ko jëfee mhm. alhamdulilah bu ko jëfee wul itam ñu ñëwaat ci ndey kumba ne ko ah waa réew mi FM mhm. waxoon nañ leen ne président woo nañu ne dina indi solution ci ceeb bi ci diw gi ci suukar si waaye ayla la fourage daal di xëddeen donc ñun sentinelle lañ ñu ngi fi lépp loo xamante jar na tire sur la sonnette d'alarme dinañ ko tirer dénoncer ko le moment venu waaye nag comme woote na ne dafa bëgg jàppale askan wi ci ay jafe-jafe yu ñuy dund li ñu mën rek mooy dem wuy ji Euh, léegi euh, ñu gis ni nag ci li la gën a soxal muy sa domaine euh, yow mi taxawal sa association pour défendre wala àq ak yelleefu locataires yi président ne dina am plan spécial pour wàññi location bi yow naka nga gisee plan boobu boobule. waaw plan spécial boobu dina tiital ñu bëri. Hmm. ndax li fi xewoon la. 2014 hmm. dafa jëloon décision ne dafay wàññi location bi. Euh, ñu gis la ca xew daanaka mu yàq diggante borom kër yi ak euh, locataires yi mu yàq diggante euh, ñi nga xamante ni nii ñoo daan luwee lu yemamaay léegi yokk nañ ko pour di xaar bu ñu yokkee ñoom ñu mën a delluwaat ci prix ba donc daanaka dafa nekk saafara bu xam ne dafa juróon jàngoro 2014 ak léegi yàgg na deful lu mel ni bu toogee ba léegi nag mu def ko dinañ ko xamal ne ko président 2014 de loi ba nga jëloon lii ak lii ak lii moo taxoon mu sooxe contrôle amul woon sur le terrain dañoo bàyyi ñi nga xamante ni ñooy def contrat yi ñu koy defee nu leen neex di imposé pris yu leen neex te kenn mënul taxaw ci seen wet ne leen bàyyi leen li ngeen di def weñ seen loxo parce que waxuñu benn borom kër bu mu mu mu tabax di di di di fonctionner à perte waaye nag lu raisonnable ku ne xam na ko lu war a jar cent cinquante mille ñu ne la deux cent cinquante mille mais loolu yenn wul maanaa boo xoolee li ñuy wax cherté de la vie li nga xam ne moom la loyer di yóbbu moo ci gën a bëri tey boo fayee location rek jeexal nga tàkk sa salaire ñi amul salaire moom ñoo gën a tee mettile nga war a dem ci dund bi war a dem ci njàngum xale yi war a dem ci téléphone courant ndox yooyu yëpp dafay metti kon bu ñu laalee location bi rek pouvoir d'achat wu ki nga xamante mooy consommateur bi dina yokk bu baax a baax a baax léegi nag ñun liñ ko wax mooy. Mm-hmm. dañ daan jël ay loi depuis 1966 ba léegi benn mosu ci euh, euh, euh, aboutir parce que duñ ko dund sur le terrain léegi nag contrôle bi lañ bëgg mu effectif sur le terrain ñu ngi commencé woon di liggéey ak ministère du commerce ci benn organe boo xam ne régulation la parce que boo wàññee di nga tooñ borom kër boo yokkee di nga tooñ locataire mais nañ réguler kenn bañ a gaañu ñu jaarale ko fi nga xam ne moom la yoon wax bu ñu wàññi ñu yokk mais nañ ko teg ci yoon bu may bind contrat képp ku ma wax deux cent mille wala cent cinquante mille wala trois cent mille kooku dina xam ne fii laa ko teg te ñu ngi doon wax problème mu euh, zonage euh, géejawaay jëpal euh, ak tout ce qui est SICAP ñëw dem pikin def ko ay zone yoo xam ne dañ naan fii ñaari chambre salon mënta passé lii chambre salon mënta passé lii ñu fixé ko ba mu leer nañ ñëpp xam ko su ko defee nag ñu daal di ciy mën a tënku ba pare am ay organe de contrôle yoo xam ne dañuy nekk ci quartier yi nekk ci ville yi de telle sorte que borom kër bi bu fekkee am na problème ak locataire am mu dem fa locataire bi tim bu amee problème ak boroom kër gi mu mën faa dem ñu régler ko immédiatement waaye yéeg ak wàcc tribunal dem police ñëpp mënuñ ko parce que doo bàyyi sa liggéey dem di ko defi. ba tax na nguur gi nee na dina recruter lu toll ci mille euh, contrôleurs yoo xamante ni ñooy nekk ci terrain bi euh, xool prix peut-être xam naa dina concerner location bi euh, de même que marché bi yow naka nga gisee mbir moom. lu ñuy rafetlu la parce que loolu aussi association de consommateurs yi yàgg nañ ko ñaan président. mais euh, depuis presque temps wu président Ablaye Wade lañ ko doon demandé muy les volontaires euh, de la consommation euh, tey bi ñu demee ba toog ak moom moo tax souvent toog ak njiitu réew bi dafa baax parce que léeg-léeg nga wax ko ay ministre wala ñoo xam ne sës nañ ci moom te duñ ko ko jottali mais bi ñu demee toog wax ko ko effectivement dane loolu lu rafet la parce que ñëpp a ngi ja jooytu mbiru contrôle sur le terrain tey li am en terme de ressources humaines ministère du commerce contrôleur économique yi bëri wuñ bëri waay boo xam ne war nañoo mën a dem soo xoolee benn koñ rek la fay nekk ci boutique nga bëgg koo def dans tout le Sénégal dafay metti léegi ñooñu bu ñu leen recruter dañuy dimbale ñoo ñëlee ci seen liggéey mooy contrôleur économique ñoom amuñ droit verbalisé mais bu ñu gisee situation boo xam ne jaaduwul am na numéro vert yoo xam ne dinañ ci woote alerter les contrôleurs économique ñoom ñu mën a ñëw def seen liggéey parce que tey da ngay dugg ci benn koñ kii ne la 700 laay jaayee kilo suukar kii ne la 675 kii ne la 800 kii ne la 900. Mhm. situation yooyu bu amee kooku nga xam ne jeune la te jël nañ ko mooy woote ci numéro bi dénoncé wala mu bind ñoom war a bind yónnee leen ko joxe référence yi su ko defee contrôleur économique yi daal di mën a wàcc sur le terrain. il faut aussi ministère du commerce ñu doter leen de moyen suffisant parce que ñoom ay fonctionnaires lañ mënuñu revendiquer mais ils n'ont pas les moyens de leur politique loolu aussi soulever nañ ko fa. de telle sorte que muy location bi muy dund bu cher bi ñooñu dinañ ci mën a jouer rôle bu am importance comme ni ko ASP yi di jouer ci ndimbal ci yenn service euh, léegi euh, Elimane Sall. Euh, mm plan spécial bi suñuy wax waxam léegi fan la ñuy dugal euh, loi bi nga xam ne dañ ko voté woon mu war a régler. Euh, location bi ci 2014. mais Ndeye Comba loi boobu dafa lajj loi bi lajj kay moo indi situation bi tey boo xoolee fii ci dakaar wala ci Sénégal. Mhm. léegi euh, daanaka sax quartier yi amatu ci solo da ngay daw parcelle dem Kër Massar mu gën a cher nga daw Kër Massar euh, dem Mbaaw mu gën a cher mais pays boo xam ne foo ci dugg surtout Dakar location bi dafay gën a cher finalement dañ ne dañoo bàyyi gars yi ñuy fixé nu mu leen neex euh, di di di di di njëtt locataires yi. di la laaj ay trois quatre mois. Mhm. donc yooyu yëpp li ko indi mooy amul contrôle te pourtant c'est réglementé par la loi léegi nag ñu ne il faut organe de contrôle organe de contrôle yooyu nag ñun proposé woon nañ ci dématérialisation mooy digitaliser ko de telle sorte que lépp lépp lépp ci machine lay dox boo cliquer rek di nga mën a xam exactement yow kër gi nga loué deux chambres salon la diw moo ko moom fii lañ koy loué soo fa demee di nga ko mën a jot léegi nag. bu ñu nee possibleul possible na li nekk ci oto Sénégal moo ëpp foofu locataires yi benn locataire rek mën na am ñaar ba ñetti oto te tey foo tàppee numéro oto dugal ko ci machine service des mines ñu jox la ki ko moom numéro carte grise bi oto bi nu mel kañ la wàcc ak renseignement yooyu yépp bi ñu bëggee changé carte d'identité yi def nañ ko boo demul dina am lu lay obligé nga dem parce que dañ naan yële dootuñ ko jël permis yi même chose donc pourquoi milieu location mënuñ ko digitaliser de telle sorte que boo cliquer rek wala nga dugal numéro locataire bi dina la jox renseignement yi ci fi mu dëkk wan la contrat bi wan la lépp ñun def nañ proposition boobu travaillé nañ ci ak ay experts ba mhm. pare tënk ko suñu nguur gi woowee dinañ ko yóbbaale proposer leen ko bu buñ ko adopté baax na buñ ko adapté wul it ñun def nañu travail bi nga xamante moom la ñu war mais daal en en tout état de cause. am nga si yaakaar daal que lu ni dina ko régler bi yoon. bu bu fekkee am nañ volonté politique nañ ko régler parce que régler nañ lu gën a jafe lool. réglé nañ situation bu gën a compliqué loolu tey lii Sénégal di fay taxe yëpp léegi dématérialisé nañ ko mën soxlaatul ngay dem de boo duggee ci plateforme bi rek mën nga def li nga bëgg a def yëpp mais lu tax mënuñ ko def ci loyer yi volonté politique la rek ak it nit ñi am benn patriotisme ndey kumba parce que aussi entre sénégalais. Mhm. seetlu nañ ne képp ku jekku sa moroom rek da ngay jël paaka tek ci teg putam. Mhm. tey bu fekkee màggal am na wala gàmm ñu yokk paas bu fekkente ne euh, xew am na ñu def rétention wu produit yi yokk ko bu dee location la su jafee offre beeg demande bi su équilibré wul ñu fixer prix yu leen neex mais quelle que soit situation bi nit ki warul wàcc ci loi te loi li mu wax moom ci la ñëpp war a tënku li indi li yëpp loolu la kenn ku nekk da ngay bëgg a bëri ci sa morom ka nga xam ne mooy fay nag dëkkee fay ba ba muy ba wala ba ba muy màggat du mën a am kër donc il faut que ñu état taxaw protéger ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñoom itam bu ëllëgee ñu mën a am kër guñ dem ak seen njaboot am nañ ci yaakaar parce que la lajjaloon lële suñ ko tegee ci taabal ji rectifier ko parce que aucune loi n'est parfaite ñu bëri dañ naan loi bële c'était mal fait mais aucune loi n'est parfaite da ngay dem di joyanti di joyanti ba ba ngay am la nga bëgg bii nag évaluer nañ ko def bilan bi li ñu gis mooy il faut sur le terrain ñu am ay euh, organe de contrôle wala ñu digitaliser ko loo def rek dinañ ko mën a dugal ci machine yi pour mën a euh, xam exactement à temps réel lan la ñu war a def ci loolu ndax contrat bi jaar na yoon ndax kër gi ñu la luyee méngoo na ak prix bi et cetera et cetera loolu nag dafa laaj encadrement juridique ay textes yoo xam ne moo koy encadré ak commission de protection des données personnelles parce que boo dugalee turu nit ki ak ay yenn euh, xabaar yu ko concerné ci biir internet wala ci biir plateforme war nga am ay textes yu ko encadré waaye daal am nañ yaakaar ci ne bu ñu defee contrôle boobu ak suivi ba ca war décision bu ñu mën a jël dinañ ko appliquer te arrangé nag borom kër yi arrangé locataires yi parce que prix yi nga xam ne ñu ngi koy exercer ndey kumba xam na ko xam naa ko ñeneen ñi xam nañ ko mhm. c'est intenable na trop merci beaucoup euh, Elimane Sall Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal yéen itam voilà ñuy fàttali yow yaa jiite association pour la défense euh, des locataires du Sénégal kuréel gi fi nekk di kaasal locataires yi pour seen a ak seen yelleef jërëjëf ndey kumba